kon kon loolu man mën naa ne bokku na ci li nga xamantene tay tey population bi plébiscité président Macky Sall li nga xamantene nak moy ci question bi nga laaj muy Pikine ñu war ko renforcer képp kuy politique di nga wax tay ka nga xamantene mo la jité ne tay dañoo wara renforcer fa nga xamantene fofu la laa dëkk waaye nag dañoo and ak njit bo xamantene tay tey euh, préoccupation ak vision bi nga xamantene mom la lal ci Sénégal nekkul vision départementaliste vision bu global la am ci développement bu Sénégal euh, li nga xamantene moy 7 sept années yi nga xamantene ne def nañ ko ci réew mi Pikine ak banlieue bi sentir nañ bu baax baax taxaway bo xamantene président de la République am nako ci biir banlieue bi puisque Pikine nak dafa nekkoon au cœur de la gouvernance ci biir sept ans yoyu kon nak constitution bi dafa am taxaway bo xamantene dako jox njitu réew mu nekk ay ay prérogatives mom rek mo am sañ-sañ tan fal ci ay poste civil et militaire yo xamantene mom rek am sañ-sañ ñun nak buñu sañon li nga xamantene jot président de la république ci 7 ans yi ni lu ci mëna a rek yok ko ci waye taxaway bi nga xamantene vision bi Sénégal émergent ko ci ñi am ko ci ñi am ko ci mag ñi am ko ci ndaw ñi euh, particularité bu ma réew taxawaay bi nga xamantene taxaw nañ ko pour li nga xamantene tay moy président de la république ñu accompagner ko partout ci campagne électorale bi fi ñu jaar gis nañ tay taxaway bi nga xamantene ndaw yi réew mi taxaw nañ ko président de la république waaye ci urne it une adhésion massive bu ndaw ñi mom mo am pour plébisciter li nga xamantene moy de le président Macky Sall kon nak réew mi comme na namu namu nekké won ba ñu yéwo ci altiné bi population bi yépp calme bi ñu àndal activités yi reprendre tey activité yooyu ñoom ñooy reprendre pour Sénégal taxaw ci yoon bi nga xamante ne moom la président de la République tracé muy yoonu yokkute bi nga xamante ne defoon na ko te yokkute bi déjà am na ci ñu war a jëm nag ci la nga xamante ne moom mooy